Parija. nga jaay ka am njëg ca sanga may ka la neex mbaa nga jaay ka am njëg sëriñ ba ca sanga may ka la neex mbaa nga jaay ka am njëg sëriñ ba ca sanga may ka la neex mbaa nga jaay ka am njëg dénkaane ka nga wóolo soxna Aida Saliou la ñu wóolo barkeb sëriñ Saliou jërëjëfaat sëriñ Béthio soxna Aida Saliou taalibeb sëriñ Béthio bi jëmmam ju tedd ji yàlla na fi yàgg te wér ànd ko ñaari bëntam yi ñooñu ngeen di séen ñoom ñooy waa kuréel cofeel jëwriñ universel Idrissa Samb amirub soxna Aida Saliou bi ak mboolem daara ja ko sëriñ bi booleel ñoo dikkati noonu ni ki sang bu tedd bi soxna Aida Saliou ngir di ko siyaare si gis ngeen noonu nu dugg see noonu nu ko baaxoo dugg see rek la damay wane seen mbég wane seenu cant ngir li sëriñ Tuubaa ni woon saa yooyu siyaare gi sab sëriñ lépp loo xam ne njortu nga ni man na koo jural mbégteem rek na ko yóbbaale na ko wane na mata ko doxe kullama tasunnu annahu yasurul mawsuura musaahabatama kullama tasunnu annahu yasurul mawsuura ku jungir ngir siyaare gi sab sang na nga àndaaleeg lépp loo njortu ne loolee kat ànd ak moom mën na laa jural mbégam moo tax su ñëw rek dañuy feeñal mbégte di feeñal xol bu sedd ñëw nag indi seen jëf ju réyati gis ngeen giléem yaa ngi noonu yu taaru yooyu gis ngeen nag yaa ngoogu gis ngeen dara yi gis ngeen yëf yëfaan yin ko booleel yépp ngir siyaare si ko siyaare boo xam ni siyaare nammeel la siyaare sant la siyaare mbég la waaye ngir màndargaale ko seen ñaari jëf jëf joo xam ni Eh, da jëm ci togg vendredi yi nga xamne ne ku tedd ki da eh, ko saxal diko ko diko togg togg yu sontu diko ko jiitaloo yaari buntam yi soxna Bato saliw ak soxna Dia saliw ngir diko yobbu ci daara alquran yi ci rew mi eh, li nek bir mbur ak liko wër ba ndiarem ba taset ak fep fi ci bir rew mi fu bare bare bare ci daara alquran yi aljuma bu jot mu len di bernde mu ñew na ngir indi ci jëfam soxna su tedd saa ngi noni ngeen di seen yalla na fi yag lool tan ko wër waaye àndaale na yit jëf joo xam ne mi ngi jëm ci cant gu gii nga xam ni ku tedd gi woote na ko samdi ngir sant ci Serigne Béthio cant gum yëkk cant goo xam ni cant la gu nuy màndargaale matal sasi màggal gi nag fas yéene jëf màggaluk sëriñ Béthio gi mu cantuk échéance goo xam ni samedi bii nu jëm daa bëgg lépp lu jëm ci màggal gi ñu collecté ko jëf ji mat ba tege ko boor doog a jublu ci tabaski gi nga xam ni màggaluk Serigne Touba gi danañ ci noppi doo a jublu ci tabaski gi cant goo gii nag. muy cant gu Soxna Aida Saliou fonk lool jëwriñ universel Idrissa Samb euh, bokk na ci jëf yim ci indi ngir tàbbee ko si cant gi kon jëf yaa ngoogu gis ngeen nag yaa ngi noonu gis ngeen giléem yaa ngi noonu gis ngeen yëf yëfaan yi gis ngeen mbég maa ngoogu loolee loolee lépp nag ab siyaar la bu nuy siyaaree sang bu tedd bi ku tedd ki nag wane na ci mbigam lool wane na ci ak cantam lool wane na ci xolom bu sedd lool ngir xam gu xam ni ñoom kat waa cofeel seen yitte jenn rek la mooy fu nu toll di jéem a dab mbégam di jéem a dab bànneexam waaye lépp lu mu digle it kenn du leen ci man waaye lépp loo xam ni ab taalibe da koy mandargaale ak taalibe mi subaa ngoon guddeeg bëccëg jëwri universitaire Idrissa Samba ak mboole mi mu àndal ci la ñuy dox ci la ñuy wax mooy seen yitte moo tax ku tedd gi xolam seddaat na bigaat na yeesalaat na ay ngërëmam ak i mbigam ci ñoom waaye ñaanalaat na leen itam ñu gën a yokk ci gépp fànn gis nga dara yaa ngi noonu ñu di ko yëkkati benn par benn di ko joxe ak yëf-yëfaan yi nga xam ne saa yu ñëwee rek bépp xeet boo xam ne daal ab taalibe dana ko baaxoo di indil ab sëriñam nga dawe ko mbégam rek université Idrissa Samb saa yu ñëw cib siyaaram da ko ciy boole waale te loolu la sëriñ ba waxoon dafa wax ni kat sab sëriñ su mateb sëriñ fa xum fii hawaahu wa tabihi li muraadihi wa dax kullama min xablu kunta tusaanihu saa yoo jëmee ci moom lépp loo xam dalay may bànnee xam na nga ca taxaw temm waaye lépp luy ndigalam it na nga ko topp sang bu tedd baa ngi noonu gis nga ko boo ko xoolee rek xam ni bég na xolam sedd na la moom pëstéef rek ko ñor kon yàlla nañ ko gën a man yàlla na sëriñ bi yokk seeni xéewal ñu yàgg ko koo defal ñu yàgg koo fekke yàgg koo seere ci barkeb sëriñ Saliou soo nay de Saliou jëmmi sëriñ Béthio yàlla na fi yàgg te wér ànd koog buntam yi ci barkeb sëriñ Béthio waaw barke sëriñ Béthio. jërëjëf sagu naa daw naa sama xol seetlu na buy jërëjëf ngeen jëf.